jërë ngeen jëf jëf yi baar baar dëgg moom la l'observateur tuddee li xew démb ca yarax ubbil yéene kay bi juróom-ñaari wayu ñoo sol seen kagul gàdd seen arme blanche maanaam ay jaasee ki yore seen cocktail molotov dogaale benn minibus tata bu yeboon ay nit sànni ca cocktail molotov bis ba tàkk client yi ne woon ci minibus tata ba ñaar ci ñoom faatu nañu ca ñaar ñooñu ñëpp ay jigéen lañu ñoom ak bis bi ñoo àndandoo lakk ba jeex tàkk am na ñu ne film ci moom soleil national nañu ab minibus tata la ay samba boy songu démb ca yarax magasin sànni koy cocktail molotov bis ba tàkk ñaari nit faatu ca lu mat juróomi nit jële cee gaañu-gaañu ministre intérieur di Antoine Félix Diome ma demoon démb ca fa yëf ya xewe mi ngi wax ci soleil national ne li am amul neneen nuñ ko mën a lu dul jëfi terroriste te ñi ko def nañu xam ne fu ñu mën di nekk dinañu leen wër ba gis leen lu xarti leen def ci ñaari nit ya ca faatu la sinekaay mi ngi ñuy fàttali ne ñaar ñëpp ay jigéen lañu mi ngi ñuy wax ne loraange yi yamu rekk ci ñi ci faatu ndax am na yeneen juróomi nit yu ca jële ay gaañu-gaañu juróom-ñaar yi wëyu yi soloon seeni kagul songoon minu bi tata bi ak seeni cocktail molotov ba ñu ca pare yéenekaay bi nee nañu dañoo agressé ñëwoon ca tata nangu seeni téléphone portable ak seeni saak li xew démb ca yarax vox populi nee nañu romb na jëfi naan Walf Quotidien gis ne lii bu yeggee ca ñag ba du baax li ñu gis démb ca yaraax musiba mbaa ba kumbala ci réew mi waa parti réew mi ak bureau politique bu parti Pastef Vox Populi nee nañu bi ñu yëgee li xew ku ci nekk ci ñoom def na communiqué di ko ñaawlu ñenn ca ñoom di waa parti Pastef seen leader bi di Ousmane Sonko l'Observateur xëy na di ñu xibaar ni mu dundee waxtam yu njëkk ca kaso bu suy bi xotaan ba ñu ko dugal ba mu yeggee ca kaso ba yéenekaay bi nee nañu prisonnier yam bi yi nga xam ne moom la Pastef am l'Observateur mi ngi ñuy wax ne état bi tàmb tàmbali ngi leen di saisir Les Échos mel ne ku koy dëggal ci xëtamu njëkk nee nañu ginnaaw bi état bi defeb décret tas parti Pastef léegi nag mi ngi wër di tëj permanence yi parti bi ubbi woon ci réew mi libération nañu ginnaaw bi ñu mandat dépôt Ousmane Sonko arrestation yi ci biir parti Pastef mu ngay gën di takarnaase nemmeeku nañu it ay manifestation ci réew mi maire bu Parcelles Assainies di Jamil Sané libération nee nañu ma nga ñu garde à vue Dembo docteur Toussaint Manga am retour de parquet moom ak Ben Taleb Sow ak Adi Sène soursoit ni ñu Jamil Sané maire bu Parcelles Assainies Ousmane Diop Pastef Mbour Maymouna Dieye maire bu Patte d'Oie ak Fatima Zahra bu Pastef Tamba ñoo ngi ci yoon ngir fekki seen leader Ousmane Sonko ca kaso ba journal tee xëy ci dikk moom it ak ñun mi ngi ñuy wax ne ginnaaw bi ñu yóbbu Ousmane Sonko kaso raafale gi ñuy raafale ñoñom yi di Pastefien mu mandat dépôt yu Ousmane Sonko ñoo ngi toll léegi ci ñeenti doomi aadama ñeenti nit ñoo ci faatu ki ci mujj yéenekaay bi nee nañu benn xale bu góor la bu dëkkoon ca quartier Néma nee nañu balu fetal la ko dóor Sénégal njiitam di Macky Sall ak gambi njiitam di aadama Barrow ñoom ñaari président yi ñoo ngi joxante loxo ci xët mu njëkk Soleil national yéenekaay bi dañu xamal ne démb la woon ca Banjul ci ndaje mii di troisième conseil présidentiel sénégalo xew-xew beneen bu xew démb ca Banjul source waa ne nañu mooy école Sénégal ba ñu fa doon inauguré école sénégalaise Tobacco Road la tudd réewum Sénégal moo ko tabax ca Gambie ak xaalis bu toll ci juróomi téeméeri millions ak ñeent fukk 540 millions président Macky Sall mi ko doon inauguré journal bi nee nañu leeral na démb ca ndajama histoire école bi ak li waral ba état bu Sénégal taxaw ci tabax ko ba mu sotti école sénégalaise Tobacco Road boobee ñu inauguré démb ca Banjul direct news li mu ci gis moo di investissement bu toll ci 540 millions ngir éducation bu Afrique ndax ci 934 élèves ya fa war a jànge dana ci am lu toll ci fukki nationalité ak juróom-ñaar yu bokkul journal Le Mandat bokk moom it ci ñuy xibaar bi ci seen xëtu njëkk mu bind mooy président Serigne Macky Sall félicité na ak ministre éducation di Cheikh Omar Anne démb ca Banjul ba ñuy inauguré école ba fa Sénégal tabax Barça wala Barsaq di mbëkk mi libération nee nañu jëyee jë ma ngay wéy ci waaxi Maroc yi yëral xët mu ko journal bi am na ñaari gaali loo ci yu jóge woon Sénégal doon dem Espagne yu ñu fa jàpp ña woon ca gaal ga yéenekaay bi ne nañu ñu ca bari ci ñoom ca yoon wi la ñu faatu